salaamaaleykum mbokk yi alxaaji Mbengue Diop ak Mame Ndokh TV xabru Cheikh Seydi Aboubacar Sy baa ngi noonu borom bonekaale bi nga xam du ko jéggal du ko sengal mbokk yi sëriñ Abdoul Aziz Sy Al nag étage bii la wàcce woon bi nga xamante ni fi la bàyyam wàcce woon keroog ci altine bi mu wujjee borom alxaaji Mbengue Diop ak Mame Ndokh TV loo am ci aajo loo am ci jàngoro na ko ci fas yàlla saafara ko ci barki Cheikh Seydi Aboubacar Sy salaamaaleykum mbokk yi alxaaji Mbengue Diop ak Mame Ndokh TV xabru Cheikh Seydi Aboubacar Sy baa ngi noonu borom bonekaare bi nga xam du ko jéggal du ko sengal mbokk yi sëriñ Abdoul Aziz Sy Al Amine nag étage bii la wàcce woon bi nga xamante ni fi la bàyyam wàcce woon keroog ci altine bi mu wujjee suñu borom alxaaji Mbengue Diop ak Mame Ndokh TV loo am ci aajo loo am ci jàngoro na ko ci fas yàlla saafara ko ci barki Cheikh Seydi Aboubacar si